That was his fault. jërëjëf mbokk internet ñu leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen waaj waay ñëw nag fii fekk bi général Malika mu jëm digganteem ak Thiam Thierry Jantal production woo ñu fi nga bàyyi mu nuyoo rek général ziar ñu ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak Poul Kër Massar Allouba ñaax montagne Rebeuss di nuyu waa ñàkk ñàkkorot Tivaouane Peulh Daara Thioub di nuyu waa Mambilor di nuyu di nuyu képp kuy bëgg Général waa Mambilor bi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax ndax dañ may woo naan ma ñu nit ci lañ bokk te dama fa am ay soppe maa waa Noflaay bi yëpp di nuy waa Gorom 1 Gorom 2 di nuyu ñëpp di nuyu képp kuy déggee général ak sama am yi nekk ci diaspora bi ku ci mel ni ñoom Ousmane Diop Boston sama grand ñoom ñoom ñoom euh, Modou Kane sama copain ak sama gars yëpp ak Mafia bi ma àndal képp kuy déggee général yi ma àndal yëpp maa ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay. mais général ki fi ñëpp bàyyi nga jëm ko la moo la jógee si jëm jéeri. waaw mais tamit man ku ne ni man bokk naa ci ñi looloo ñu boole rek dañ ko fee bàyyi bàyyi ma fi rek yàlla dogal ñu boole ñu ngi gën a bi yow yaa ngi fi diggante diggante ak Bour Sine man delloo si la moom mu ngi mujjee bëri diggante ak Ahmed Deme waaw man ma mujjee ci diggante ak Bour Sine kon amul xalaat dama ko war a jël rek jël ko champion la mbër mu ma respecté la mbër mu ma naw la te man aussi damay bëgg su may bëree ci làmb di jox ma kii fi ñëpp bàyyi wala kii ne moo fi mën ci laa gën a mën a wane sama bopp naree sempi jaaga xam nga samp jaaga nga wax su ma naree sempi jaaga dagg sama reliquat bu buñ ma jox reliquat sama diggante ak moom amul lu xalaat te liñ ko favoriser ma ne loolu la mën bu lamba yaa ci laa koy fekk kenn du laaj général tax mën na bëre champion d'Afrique remporté drapeau chef de l'État deux fois amul fu ma ko ci àll bi toj ko kon kenn du laaj tax mën naa bëre xeex biñ ne ci la moom la mu ne ba ma ko ciy fekk wan na ko damaa mën ci biir woon mën ci bee boor gën a loolu yàgg na ça fait ay six ans sept ans ci gën a canaliser ci ñëpp gën a métti xeer dee ko ci xaar waaw bii nag mooy gën a sax ci kàttan suñu borom di ko ñaanal jàmm ndax aussi ku ma respecté la mbër mu ma fonk la mbër mu ko naaw la ndax champion la vraiment kon tey bu yàlla dogalee lamb boole ñu bu ma def lu dul jox wàcc waaye aussi di ko ñaanal jàmm di ñaanal ay mboqam jàmm di ñaanal ñaan yàlla defal ñu jàmm suñu lamb amaguñ dat di wax amee dat lu neex lu fees dell man damay yëngal ci bii boor yëngal ci bee boor damay ñëw ambiance bu doy waar ñu làmb at bi sifle ma suul samay tànk xaw ma tànk ginnaaw sama arrière day tëj sama gàllaaj baaxul ci man suul tànk yi rek dox jëm ci waaw. non amul benn problème ñu nay xale lañ tolluwuñ fi ñu amee dafay ñàkkee lu mu gën a jege gën ñoo arrangé lu mu gën a gën ñoo arrangé bu doon tay léegi léegi nii pare nañ. bu doon suba pare nañ léegi léegi bu doon léegi pare nañ. barke yeneen bi bu doon léegi léegi nii pare nañ bu dee suba pare nañ bu dee ginnaaw suba pare nañ jour bu mu doon pare nañ ndax kuñ dul xaar waroo di xaare ñun xaar ñun kon duñ xaar kenn. waa jandeer bi dëkk si suuf waaw waaw waa jandeer dama leen di nuyu di leen félicité ndax ku xam na ne ay gan lañ ci làmb mais ñu ngi ciy bay seen waar quoi di leen ñaanal yàlla defal leen continué ak jàmm aussi di nuyu jandeer bi tund jandeer gi maa leen di nuyu aussi dama fa am ay soppe am fa waa Mboro. sama gars yi nekk Mboro yëpp maa leen di bëgg di leen siyaar comprendre nga ñoom Ilimane sama gars yi mafia boobu yëpp jandeer bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàcci waaye naan leen làmb ci seen làmb la waaw rendez-vous waaw bu dat amee rek moo leen aussi di nuyu sama gars yi tamit ma seen fay mafia bi nga fekk nii vraiment ñii aw seen fay maa ñoom xam nga petit ba grand <laughs> kon nag ñoom yàlla leen yàlla defal jàmm sa waay nag temps yi jeune la moo tax mu ngi leer instant bi nii <laughs> waaw dam day tafa maa ngi bëggee ñëpp daal di ñaanal sama berser jàmm di ñaan yàlla suñu daal di defal ñu ndam jaajëf waaw. Adja yokk la yokk la. Eh, champion bu ñuy wax jam Thiel doom day Moussa jam ziar naa. waaw maa lay fay maa lay ziar bu baax a baax yooyu di leen fay bu baax a baax di ziar pour jëndal gi di nuyu waa turu jëndal bi yëpp yëpp yëpp waa Kajoor waa Bawal mënu ànjëra bàyyi ma kenn di leen ziar bu baax. yow na waa Kayaar. waa Kayaar ñëw ko. ñu jëm balaa ñuy sori jëm ki fi ki fi ñëpp bàyyi naka la adversaire jël ko muy général Malick la moo la dugal si moom. man ñëpp dama koy bàyyi di. eh kon yéen ñaar yow. jàngoro man ñëpp dama koy bàyyi moo tax jël ko. waxul dëgg de su waxoon dëgg duñ moom. da nga ne làmb waxul dëgg waxoon dëgg. ci kaw la may fekk ci kaw la may fekk moom mais du mbëri maam ko. dama kaa laaj léegi mu ne amul dara lu muy tiis yow bu at bi lépp lu fay neex moo li nga gën a mëne si lay fekk si muy xeex. bu ko defee daanu de. déet waay. bu ko defee bu ko defee daanu. yow nga dóor sama mbéy mi naa bu ma koy wax nag ay comédien lay def mais bu xeexee ñu leen yóbbu. ñoo xaat kam teeri bi ñëwoon digganteem ak Baara Ndiaye yàlla yàlla mooy wér nanam wér rek bu ko raw bu ko raw sax mën na ñëw parce que affaire bi liggéey la rek te yàlla def na ñi mën nañ ko trop ndax xam nañ ko mais nag xam ni ku nekk li nga def ci nga am ndog ndog amoon nañ ndog yàlla suturaal nañu ba wér nañ bu baax a baax tan na suñu bopp bu baax a baax yàlla yàlla may wér ak tarat fekk combat bi lan la a xaar ci diggante ak général Malika non combat bi combat bu neex la combat di année la combat bii nii promoteur yëpp dañ ko yal na ko yàlla wërsëgale parce que maa ngi ñaan yàlla mu doon mu doon meilleur combat di année. meilleur combat de l'année. waaw moom laa bëgg man moom laa bëgg maanaam bu mu doon meilleur combat di année ci xeex ci bëre. ndax moom moom koo xam ne day xeex day bëre. waaw man tamit damay xeex damay bëre kon dañuy daje. toujours waaw. nee li ba neex yëpp boo koy def. loolu moom mooy ay théâtre la rek. Eh. bare woon nañu ko wax. soo bi nekk ñu taxaw kaw saako yi jamteer moom yàlla xam na ne nga gis ko ci kaw di wax ak moom yomb na trop mais fi asante bi neexul ma fa kenn moom tam fee neexul fa kenn de waaw loolu dina leer néew ci ginnaaw mi ngi ci kanam loolu néew ci ginnaaw mi ngi ci kanam nanu yàlla may wér rek loo bañ mu ñëw boo jàppal bés wax na yomb na mais moom naa koo wax ji naa koo wax ji naa koo wax ji mais bu ndee ba ba bëri ba pare dinaa ko wax ci man. non moom moom nee lu mu wax ko def. yàlla baax na Serigne Touba numéro am. lan nga wax Diender bu dégg sa combat. bii du combat wax combat jub la koy lancé Diender gi yëpp di woo Boylo bu Kër Moussa Boylo Boylo Crédel mi jaay oto yi nga xam ne ku bëgg oto bu rafet la. ku bëgg oto bu wow bu dëgër moom la ak Laye Pythagore doomu ndey Laye Pythagore maa ngi koy woo baax a baax a baax waaw di wax waa turu jëlee yëpp nan xooli Boy Lo bu bëgg oto bu baax rek xoolil Boy Lo parce que da ciy wax combat bii moom ma jox ni di ko sant rek bu baax a baax di ko ñaan yàlla yokk ñu ngi koy wax ñu koy wax baax baax a baax di ko woo bu baax ci combat bi yëpp nag ñi xam seen doom am na combat seen rakk seen lépp am na combat combat bi nag du combat wax combat jub la ñun nañu jàppale jàppale promoteur bi aussi parce que promoteur bi jëndee la dëkk mbër bi jëndee la dëkk te nag kuy dëkk te nag kuy dëkk ku nekk maanaam kuy wàllu yaan kuy wàllu yaani sa dëkk daa tëbul nañ ñëpp ñëw nan bàyyi complexe bi te wàcc ci bi jàppale ñu il est ñu àgg fi gars yi war a àgg fi na àgg fi yi àgg jot na yoon bi yàgg na métti na jot na ñu àgg fa te combat bi la gars xam dafa war a àgg ñu faa wu ñu faa. bii nii combat xam bii nii la xam yàlla na yàlla may wér wér a ñaan mais après bu wér a amee leen li def tënket. ko yóbbal na ko na may wér di ko sant bu baax moom seen amalika parce bi ma ñëpp tawee ke ñëw ma jël moom moo ma jël bu ko neexoon ma yëpp rek man te boobaa du ma ko ci balaa mi mais di ko ñaanal jàmm yàlla may ko wér ak tawféex bala suur si yàlla may ma ndam. jaajëf jaajëf naa leen baax na That was his fault.